dinañ soxla seen coefficient électoral parce que c'est un c'est score boo xam ne dafay tourner souvent entre euh, deux cent mille cent quatre-vingt-dix-sept cent quatre-vingt mille euh, électeurs alors mun euh, homme politique mun na ko soxla pour se renforcer peut-être être présent au au, premier tour. alors nan nan nga gisee nan nan ci ci discours bi nga. dégg dégg démb sëñ Moustapha wax ko est-ce que jàpp nga ne il reste ancré. dans Yewwi wala est-ce que jàpp na ne nga ne mën na il peut se mouvoir le pur peut se mouvoir ñaari question la bu njëkk bi li ma la ciy tontu lu leer la élection addition la donc sëñ Moustapha ànd ak yow moo gën mu bañ ànd ak yow parce que buy ñëw day àndaale ak mbooloom loolu dafa am lu muy yokk loolu c'est clair loolu c'est évident maintenant nag boo xamee tuuti politique wala sax xamoo politique nga dégg tuuti àdduna nga dégg sëñ Moustapha ni mu waxe da xam ne am na lu ko metti ci yeewu. yow nan nga ko gisee. mais bien sûr da ngay xam ni doxalinu usmaan Sonko aussi am na lu ko ci neexul da koy xam. yaa ngi dégg da xam ni aussi yeew yi niñ doxalee ak. le clergé de Tivaouane traditionnel maanaam niñ doxe wa doxeele ak mbiru xalif général beeg ñi ko wër ak ni sëñ Moustapha bëgg ñu doxale du benn koy xam parce que nag sëñ Moustapha moom vraiment il a le mérite direct ak loo ci mën a dégg mën nga ko mën nga ànd ak moom li mu sentir moom da koy wax <laughs> yaa ngi dégg rang mën na koy wax nit ñi dund wala ñuy dee waaye moom da koy wax et da koy wax sax ak style bu direct quoi